Euh, mbokki euh, téléspectateurs yi xam ngeen ni kon ñoo ngi fii ci euh, Italie Milan ci place bi ñu gën a xam ci Piazza domo di place boo xamante ni place touristique la. ngir nag euh, euh, nemmeeku fi yenn mbokki sénégalais yi nga xamante ne fekk na leen fi ñuy euh, daan seen doole di ay jàmbaar lool gis ngeen si taw beeg seddaay bi waaye terewul ñoom ñëpp dañuy génn nekk ci réew mi dina ko kon dox seen yétte ni nga xamante ne moom la waree ñàkkul ñaar ñett si ñoom ñoo xamante ni dinañ leen jël def ak ñoom benn témoignage un rek si réew mi bu ñu noppee it incha allah lépp lu jëm si euh, seen euh, digganteeg euh, Serigne Touba maam Cheikh Ibrahima Fall incha allah dinañ si am ak ñoom ay échange yu yu yu yu yaatu incha allah léegi nii rek kon mbokk yi ñu ànd ak Serigne Thiam Baye Fall bu Touba Monde bi di ko ziar bu baax a baax moom it ak Serigne Abdou Touré di Murid Sadiq waaye te it mu Mor Ndiaye di sunu wëllëre di sunu xarit di euh, murit Sadikh ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax kon mbokk yi ñu ànd ak euh, def benn tour euh, un rek def ay quelques reportages si yenn mbokki sénégale yi. waa kañ jërëjëf sëñ cambaay Fall maa ngi ak mbokki taalibe yi nii di mbokk yoo xam ñu bokk réew ma te ñëw fekk leen fii ci Piazza Piazza Duomo voilà ñu ngi leen di ziar bu baax nga présenté wu. waaw ñu ngi lay doon lay ziar bu baax ñu ngi waaw man maay Serigne Fallou Mbaye sama kii Pape Gueye ak euh, sama alaaji waaw ñun moom ñu ngi fi rek comme noonu waaw nekk ci li ñu fi indi yam ci tamit bu sëñ bi wootee ñu dem nekk ci lu ñu war a nekk daal ndax yaakaar naa ndaw moom gàllaajam mooy liggéey jaamu yàlla te ci lool ci lool la ñu ci lool la ñu yar lool lañu xam te tamit yaakaar naa boo bàyyee sa famille Sénégal boo ñëwee fii war nga mun a fas jom nekk ci li la fi indi daal daanaka ñun ñëpp wax dëgg yàlla moom yàlla suñu borom bi ñuy dimbali te ñu ngi ciy sant sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla ñu ngi sant sëñ Tuubaa bu baax daanaka liñ fiy liñ fiy bari wala mu néew lépp ñu ngi jàppalante suñu biir lépp lu ñu war daal xam nañ ko te ci kàttanu yàlla ñu ngi ñaan sëñ Tuubaa dimbali ñu doole Cheikh Ibra waaw mu mel ni xamu tàngaay wala seddaay ci réew mi saa su ne li leen war yéen a wax ñu ngi leen di bu baax euh, di leen màggal di leen jox yéen ñëpp seen waa waay waaw dool di sant Sëriñ Tuubaa Sëriñ Muntaxa yàlla na ko ba li mu bëgg yëpp mu am ko sama buntu si Serigne Touba sëñ Abdourahmane Mbacke xalifa Daaru Xuddoos maa ko koy ziar bu baax waaw ñun moom ay murid lañ dañoo sàkku si àddee rek moom duñ mën a xàmmee tàngoor duñ mën a xàmmee seddaay luñ am lu lu mën a dellu dindal njaboot gi euh, ñu mën a gën a liggéeyal Serigne Touba rek ñun dañ siy nekk quoi waaw dëgg fa ñun moom chaque jour moom ñu ngi si liggéey bi di sàkk lu leew di moytu tooñ di daw lépp loo xamante ni daal suñ diina mayu ñu ko waaw loolu laa si lañ nekk chaque jour waaw dolli sant Sëñ Touba nag lu wër doonee murid jaajëf sàkku sàkku lu lew moytu tooñ ci réew mi nga xamante ni euh, réew jàmbur la euh, te ku leen fekk ni ñu ko waxee taw bi euh, mu ngi wàcc waaye terewul ku si nekk li nga war yaa ngi si seen diggante réew mi it mel na ni jafewul macha allah. waaw jërëjëf sëñ bi ñi ñu ngi ziar ñëpp di ziar kilifa gu tedd gi ngeen àndal di ziar télévision bi ngeen àndal di la wax ne comme ni ko sëñ Pape waxee rek. ñun moom wuñ tàngoor xam xamuñ muy taw muy naaj parce que ñun taalibe Serigne Touba lañ te ñun ñëpp benn lañ aussi comme ni ko Paa waxee di jàppalante moo moo ñu tax ñu jóg te kenn ku ci nekk rek dangay ngay ñëw fii pour daan sa doole pour am loo yóbbu Sénégal seen ko waa nag di gërëm ñëpp nag wax dëgg yàlla ndax ñun ay taalibi Sëñ Tuubaa lañ ndax lépp lu ñu am rek Sëñ Tuubaa moo tax kon dañ rek ndax ñun murit moom murit moom amul lu ndigal ak joxe addiya ak bàyyi tere waaw ñu ngi sant bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla jërëjëf euh, euh, ban message ngeen di porté jëmale ko si ñu ñu bàyyi réew ma ak euh, ñi nga xamante ne sax ñoo nekk fii euh, comme mooy euh, mbokki Sénégal di di di di yëngu ni ngeen ko waxee. waaw ñi njëkkee rek ci ñi nekk Sénégal mooy suñu moroom yi ak ñi nga xam ni bëgg nañoo ñëw te daanaka kumpa rek moo leen moo leen tax di jaay seen bakkan wala ñuy dugg ci lu ñu xamul. que ñu bañ a yàkkamti ndax fii moom alaa kulli aal ku fi sa wërsëg nekk ci kàttanu yàlla di nga ko jël si bañ a yàkkamti la te tamit ñu xam ni fii ñi fi nekk wërsëg yamul. ku ci nekk lu sa morom am nga yéene ko ko lu sa morom nekk nga yéene ko ko yéene ko jàmm yéene ko salaam parce que tamit ñun ñëpp ñoo bokk fu ñu jugee bien vrai que ni dañoo daje ci réew mi rek waaye mel nañ ñi ay mbokk ndax gars yëpp boo ñu gisee bu ñu toogee doo xam sax da naan ñii depuis xamante nañ depuis Sénégal te Pape mi yàlla xam na ni fii lañ xamante sama waa ji tamit noonu kon dañuy wax rek ñuy jiital tamit ñi nekk Sénégal tamit di leen ci jiital chaque jour ñuy doy loolu ñu am te tamit ku ci yàlla tudd sa wërsëg ni di Europe nga koy jël sa muy Italie muy France muy feneen ak feneen xamal ni di nga ko jot te mu bañ la jaral loo xam ni ngay dugg ci loo xam ni ëllëg danga nga koy rëcc wala loo xam ni dañ la ciy xeeb wala ñu la ciy doy dal mu ngi jaajëf. même même même laaj bi rek. waaw waaw di xam nga. ziar waa Sénégal gi yëpp di leen xam nga masawu coono dëkk bi xaw na metti jafe-jafe yeeg crise beeg yëpp waaye na ku ne doyloo li nga am rek ñun nekk fi sax dañuy naw ñu nekk Sénégal ndax xëy na boo xoolee ñoom ñun ñu ëpp jaam parce que lii Europe ñu ñëw xam ngeen ko lépp si heure la yow heure dàqanteeg métro yi dàqanteeg kaar yi ñëwaat nangam yow boo xoolee ba ci bi sax naan yow yaay liggéey di jox waa Sénégal yow ngay ñoom ñuy ñoom si àll nekk ku si mën nekk lu baax loo xamante ni lu lew la jàpp si te yàlla nga ñëw fi bés bu soobee Serigne Touba di nga fi ñëw mais bu kenn yàkkamti dara ba mu tax ngay jaar si gaal ñii ñoo leen mag ñii ñoo tolloo ñoom ñu xam nga faatu si gaal geeg yooyu wax dëgg mett na trop da leen naqari waaye da nga xam ne ñëpp rek teral seeni waajur liggéey bëgg lu baax rek leen si tax a jóg waaw di jox message ñu nekk si réew mi tamit nañ gën a góorgóorlu ñi amul këyit ak ñi am këyit yëpp nekk si li war a nekk bu leen at dalal aralu àddina jaral ñu bu leen aralu àddina jaral dugg si loo xamante ni suba boo gisee sa mbokk da ngay sëgg wala da ngay rus waaw am murid daal wax dëgg fa yàlla moom lu dul sàkku addee jëfee ndigal moom lu lu nekk lu nekk si lu dul lool rek dafa wàcc yoon wi waaw di ziar ñëpp waaw di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi lool te ban ban message ngay porté jëmale ko ci comme gars yi li ñu wax rek parce que boo xoolee jeunesse Sénégal fi toll tukki rek lañ def yaakaar ne mm. ku tukkiwu doo tekki te ñu nekk Europe ku dem Sénégal am na ñoo xam ne ña nga ju bëri mm. di ñaaxaat euh, aussi gouvernement Sénégal mu taxawu nit ñi ci liggéey mm. parce que jeunes yi boo gisee ñuy génn aussi ñàkk am ay moyens ba ñàkk liggéey aussi bokk na ci aussi da ngay parce que boo xoolee européens yi li tax ñu ñëw fii di ut si mm-hmm. seen i jeunes duñ génn feneen wala bu ñu génnee dañuy ñëwaat parce que li ko wax mooy seen seen réew dañ ko organiser gouvernement Sénégal bu organiser jàppale ay ndawam rek yaakaar naa ne mbën euh, li nga xam ne lu bëri daal ci géej gi ni ngi gi dee man dina wàññeeku daal mm-hmm. parce que il faut nag ñu gën jàppal jàppale jeunesse bi. lu si am solo di leen jaajëfal bu baax dégg ngeen bu baax kàddu yi am solo yi nga xamante ni moom moo fi jug suñu mbokk yi nga xamante ni mbokki jullit lañ mbokki taalibe di mbokki sénégalais yu ñëw si réew mi ngir nag euh, niñ ko waxee sàkk lu lew ak euh, ak ak ak moytu tere si la ñuy xëy si la gont réew mi métti na lool waaye nag euh, xam naa ni. seen xel mu ngi dem si retour maanaam ñibbi. waaw waaw waaw xel yi mu ngi ci mu ngi ci bu baax a baax baax ndax gars yi moom pratiquement chaque année ñu ngi ñibbi. bu gën gaa gàtt nañ fa def ñaari ñaari weer wala yooyu ñeneen ñi tamit daanaka tànk yi moo xaw a moo xaw a jàppandeegul maanaam kayit yi mais nag ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi ci ñi amagul kayit ñu ngi leen di ñaanal barke maam Cheikh Fall ku ci nekk yàlla suñu borom li gën ci yow yàlla na ko def waaw parce que nit moom yaakaar naa boo amee li gën ci yow rek sa àdduna moom da ngay da ngay noflaayu nit moom lépp looy sàkku rek da ngay ñaan yàlla mu doon li gën ci yow bu ko defee mu mën a doon noflaay ci yow ñu ngi koy ñaanal mbokki taalibe yëpp wax dëgg yàlla ñëw ñëw vacances dëgg la waaye retour retour nag ñibbi si ngir jàpp si maw réew mi yéen a ngi bàyyi xel waaw ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ndax ku amoon lu la gënal doo génn sa réew sax bay ñëw si réewu jàmbur tukki dafa metti boo ñëwee fii gis loo xamante ni par dinañ la teg loo xam du la neex da nga koy naanee ndox te xam ne yow yaa génn yaa nekkul sa réew lu bëri doo ko mën buñ sañoon lu lépp luñ am suñ dëkk lañ koy investir toog xëy gis sa waa gis sa waajur gis sa famille euh, nekk si jàmm dara dàq ko ngay xëy di daw buñ sañoon wax dëgg faal am xéewal goo xamante ni wala suñu réew développé développé boo xamante ni bu soobee sëñ Tuubaa lépp rek dañ koy kiiwee waaye wax dëgg faal ñun ciy toog ñëpp ku si nekk boo lu mu yéene a dellu Sénégal am fa moom la fay jëf toog fa a suturlawoo ak njabootam wax dëgg ñëpp nga koy xalaat wax dëgg fa yàlla jaajëf am am am teraanga mooy amee ko sa réew mais boo ko amee réew jàmbur it ñëw investir ko sa réew dëgg la. waaw parce que dañu boo déggee olof nee na tukki moom boo fa amewut xamee fa. Hmm. kon yàlla nañ boole amee koo gis rek dafa ñun ñii ñëpp dañoo bëgg ñëw ut fii dara teraanga di mat suñu réew euh, investir ko fa pour suñuy doom ñëpp mën ci jariñu parce que comme li Pape wax rek tukki dafa metti di dégg lu ne di gis lu ne mais nag boo tukkee aussi dina la am lu mu lay yokk lu baree bare. waaw loolu daal moom xam naa ne daal moom am solo daal jërëjëf. jaajëfal leen baax a baax sama sama sama sama sama gars yi si euh, kaddu yu am solo yi nga xamante ni seq nañ ko te lépp di njëriñ yaakaar naa ni ñi nekk si réew mi ak ñi nekk si réew yi ku si dégg ku ko si dégg dina dina def si yow njëriñ di leen jaajëfal bu baax a baax incha allah euh, ci yeneen barab ci yeneen gox incha allah gën leen euh, découvriral wan leen sunu mbokk sénégalais ak ñi nga xam moom la ñuy dund si biti réew jaa ngeen